Seni jaar-jaar daal ñu nekkee ndaw dañoo bañ lépp bëgg xam-xam danaa wax ne su ko xaaritoon jar danaa ko am abonné wu ci seen youtube bu ñambi tv bësal na ko station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a di mu naanal Cheikh Moussa yëpp mu mën ko matal di ko ñaanal tamit képp ko nga xamante ni sa yéene ak sa bëgg-bëgg mooy liggéeyal Cheikh Moussa wala ak ngërëm ñaanal yëpp ñëpp yàlla may leen kàttan ak wér yokk xam-xam yi yokk leer yi ziyaara bi wér di ziyaar wa daayira ukat federation ñambe

ci kaw suuf ginnaaw bam ñu defee ñu nekk jullit euh, xéwal bi gën a rëy bim ñu defool mooy tase bii ñu tasanteeg xam-xamu ñàmbe bi donc amuñu lu ko gën ci kaw suuf euh, mu mel nii nekk na xam-xam boo xam ni moo mën a defar jamono. moo mën a defar jamono nekk na xam-xam bi nga xamoon tamit li yàlla namm ba tax mu sàkk loolee xam-xam bi moo ko mën a nekkal mu mel nii loolu dafay taxaw taxawaayu ñàmbe li mu waxoon ni xaw ma yonent la wala duma yonent waaye lañ joxoon yonent yi lañ ma jox après daal ne wooteelu kenn yàlla laay wooteel ba pare daldi ne wooteelu ma kenn yàlla laay wooteel ba pare daal ne bu ma kenn liggéeyal kenn ku ci nekk laaj ma li nga xamante ni motax nga jox ma sa bop ma jox lako nga jaamu ju yalla ma jaamu ju yalla buñ tassante ci kanamu yalla ku ne yalla fay la donc mu mel na fi mu toll ni ñu toll ni ci jamono doctrine Cheikh Moussa Cissé ñambe daru ni mu tawhid ni mu l'islam jot na ñu exposé ko ci fànn boo xamante ni day mucc ayib ñàmbe kàddoom bi mu taxaw ne bu ma kenn liggéey la ci kenn ku ci nekk laaj ma li tax nga ñëw sama kër ma jox la ko nga jaamu ju yàlla ma jaamu ju yàlla buñ tasantee ci kanamu yàlla ku ne yàlla fay la foofu boo koy xool ba jamono tàmbalee ba léegi kenn mësuta woote noonu yàlla mu mel ni boo koy xool noonu xool dans le domaine philosophie mu mel ni ñàmbe dafa libéraliser xam-xam bi dafa libéralisé recherche spirituelle bi dafa dafa libéral dafa libéraliser système de tarbiya bi donc euh, bërëb bii nga xamante ni fii lañ nekk nii tey di fi di fi waxtaanee mu nekk bërëb bu nga xamante ne bërëb bu symbolique la ci sunu dund muy lan université université mu nekk bërëb yi nga xamante ni xam-xam yi nga xamante ni moom la doomu aadama di wala soxla pour mën a tabax àddunaam xam-xam yooyu lañ fiy sàkku te yàlla waxul àdduna kese dafa ne dunia wal axira àdduna ak al'axira donc euh, mu mel ni li nga xamante ni mooy defar doomu aadama ba mu mën a réaliser wu ba mu mën a am texe ba mu mën a am jàppandal saayar ak baatin xam-xam yooye ñaari xam-xam la muy saayar ak baatin mu mel ni baatin bi bokkul ci système programme universitaire te loolu dafay jur handicap pour doomu aadama yi mën a réaliser wu ci naka tey ji booy université maanaam tey man bu ma doon l'islam perception bi nga xamante ni moom am ci l'islam Donc exposé bu ma ko doon exposé sur système universitaire ñu ne ay faculté Nous ñoo koy composé faculté yooyu am faculté lettres faculté lettres boo ko doon tey jii symbolisé ci alxur ci ci diine mooy ñi nga xamante ni ñooy jàng sciences littéraires. littérature grammaire tey ji ci arab moom mooy tombeex ñi nga xamante ni ñooy fer ij ba pare di jàng naxwu loolu lay tombeel faculté bi nga xamante ni moo ci topp faculté bi ñuy tuddee faculté juridique tey ji mooy dëppook ci diine faculté bi ñuy tuddee charia charia baatu arab la boo ko doon firi tey jii moy yoon bu jëm ci tefes yoon bu jëm ci tefes wala ñu jurisprudence jurisprudence li nga mom moko pour nga une morale forte et morale forte bobu mo lay mëna tax nga am jamm sa ci kaw suuf taxul nga am ñu jëm la donc te daan na ko misaal misaal boo xamante ne bu mucc ayib la mooy daana wax naan boo duggee ci diine lislaam lu la ciy dugal mooy baatu seede yi ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah dugg nga ñu ne lan da ngay jëfe charia yi maanaam ndigal yi danga koy jëfe maanaam respecté règlement yi waaye kaw boo respecté règlement yi ba noppi mooy boo respecté dogme yi ak règlement yi ba noppi weer dee taxul nga fayeeku ñëpp xam nañ ne boo duggee ci dëkk pour nga dugg ci dëkk pour nga mën a séjourner ci dëkk bi am fa jàmm foo nga lu waaye dëkk boobu lu waaye dëkk boobu nag taxul weer dee nga fayeeku donc euh, keroog ba ñu gëmee dugg ci diine lislaam respecté règle règlement islamique yi moom la ñuy tuddee euh, ibaadaat yi ak muamalaat yi buñ koy respecté ba pare lool dinañu mëna may ñu am jàmmi aduna mu dess lan jàmmi alakhirah jàmmi alakhirah moy lan moy xol bo xamanteni da fay set wecc ci bokalé yàlla mu melni xol bi xam-xam bi nga xamanteni moy mëna permettre nga mëna vérifier sa xol ndax set na wala setul xam-xam bobu du xam-xamu sharia kooku xam-xamu mahrifa la ñambe xam xam-xam bobu lañuy ñuy muy mahrifatu billahi tay ji boko don exposer dans le domaine scientifique da nga koy yóbbu dafay dafay manifesté wul di dimension bi ñuy tuddee domaine métaphysique ndaxte science dañ ko diviser en deux science mathématique euh, philosophie dañ ko diviser en deux science mathématique ak science bi nga xamante ni science métaphysique la mu mel ni science partie boobu ñuy métaphysique université yi amuñu faculté boobu donc université loo fi xam-xam xam-xam xam xam loo fi nekk nek, nek, nek, mënoo fi jëlee lu dul xam-xam yi nga xamante ni moo lay mën a permettre nga am métier àdduna yi mais métier bi xam-xam bi lay defaral sa àllaaxira mënoo ko jëlee ci université yi donc ñàmbe indi nañu lu nga xamante ni effort bi nga xamante ni moom la ñuy def moom la doomu aadama di def pour am métier ci àdduna yi tey ji waroon na laaj beaucoup de plus pour ñu mën a am xam-xam bi mais mu jàpp ndalal ñu ko yëwénalal ñu ko kon amel nañ ko njukkal boo xamante ni

tey jii xam-xam bi nga xamante ni mooy xam-xamu maarifatu billaa nga xamante ni xam-xam la boo xamante ni lenn rek moo ko tax a jóg mooy fexe ba doomu aadama xam ayib yi nekk ci xolom mu mën ko purifier ba mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell boo xamante ni du ko bokkaale ak boroomam loolu dong la mooy objectif bi ndax yàlla nee na sàkku ma ñu tax jinne lu dul ngir mu jaamu ma sàkkuma ko ngir leneen leneen li ci des yëpp secondaire la leneen li ci des ay xumbel la mais li nga xamante ni mooy suñu cause existence mooy ñu jaamu yàlla da buñ ko bokkaale ak kenn ginnaaw loolee nag sant ak gërëm allahuma salli ala saydina muhammad wa sallim dañ ko fee fekk ndax yàlla moo ne man ak samay malaaka julli nañ ci yonent bi yéen ñi nga xamante ni yéen gëm yàlla gëm yu gëmul xam yi dee leen julli ci yonent bi loolu li muy firndeel mooy yàlla ba mu nammee gindi jaam yi yóbbu leen ci yàlla dafa yónnee yonent Cheikh Moussa daana wax naan yàlla daa yónnee yónni ci yónnee yàlla ba muy yónnee kan la yónni boppam la yónni lan la yónnee boppam la yónnee ci kan la yónnee ci boppam la yónnee donc foofu ñaar ñett amu fa yàlla ba muy yónni boppam la yónni boppam la yónnee te ci boppam la yónnee pour que laa ilaha illallah muhammadu rasulullah doo am chiffre de faw nga gindeeku ci yàlla sinon booy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te gindeewukuloo ci yàlla boobu dangay taxaw ci dualité parce que da ne laa dara amul illallahu lu dul yàlla te yow yaa ngi taxaw di wax yaa ngi jëflanteeg keneen yaa ngi wax ak keneen yaa ngi kon say wax am na contradiction ak li nga xamante ni loolu ngay dund donc gindeeku bi moo lay mën a permettre nga laa ilaha illallah muhammadul rasulullah bi boo ci gindeekoo da nga day xam ne allahu bi mooy muhammad gi muhammad gi mooy allahu gi bu ko defee ci noonee ngay mën a dem dugg dans le nga jënd dans le domaine du dualité dugg dans le domaine de l'unicité donc kon dimension la donc ñun li ñuy dox di ko wax xam nañ ko li ñuy dund tamit xam nañ ko bu ñu taxawee di laa ilaha illallah di ko wax woyuñu feccuñu tagguñu kenn toppandoowuñu kenn li ñuy wax dañ koo xam te mbir dafa am muy ka xam-xam bi jiitu na fi ñàmbe jiitu na fi Serigne Touba jiitu fi na ci Mouhamadou Rasulullah jiitu na fi ñëpp xam-xam bi lañ joxoon maam Aadama yonent bi fi mës ñëw xam-xam bi lañ la jox keroog ba buntu yonent yi tëjee ñu jox wàll wi wàll wi xam-xam bi lañ leen jox keroog ba xam-xam bi tàbbee ci ñàmbe foofu la taxaw daal ne xaw ma yonent laa waaye duma ma yonent waaye lañ joxoon gaaya moom lañ ma jox ku ma jox sa bopp ma àggale la ci yàlla yëgal la yàlla ba nga xamante ni ah, ah, di nga mën a jaamu yàlla te doo ko bokkaale kenn donc li ñuy dax xam nañ ko certitude lañ ciy demee muy yàqin te lii nga xamante ni ñàmbe waxoon na ko tamit jar na fikra li ma leen jox dem leen fu leen neex ci àdduna bi ngeen wax ko fa bu ngeen gisee ku leen jox lépp li ma leen jox ngeen bama donc kon wóolu na li nga xamante ni loolu la ñuy jox tu vois donc te l'islam des fois damay faral di def euh, ay débat yu bari di poser question lan moy rôle l'islam ci dund doomu adama bi gëm nga yalla mais bu fekkee ni da nga gëm yalla gëm gëm doyul ndaxte bo gëmee yalla xam nga yalla ne parce que yalla li tax mu ne gëm parce que yalla dafa baatinu baatinu gi mu baatinu nak motax ñu indi batu gëm des na deuxième deuxième étape bi nga yow talibé bi moy da nga wara def ay effort ba xam yalla après gëm xam top? ci top tax université bi ngeen tok di jang tay ji bu ngeen gëmul won ni diplôme bi ngeen bëgg amna fi ton du ngeen fi inscrire am de donc da ngeen da ngeen gëm ni diplôme bi ngeen bëgg kenn ku ci nekk faculté bi nga bi nga bi nga orienté wu gëm nga ni bo defee effort ci bir bo inscrire def effort di nga am diplôme bobu motax nga inscrire kon gëmul len ni mën ngeen fi am diplôme bi rek da ngeen a gëm ba paré def investissement fay khalis, ba pare investir temps ak énergie pour décrocher diplôme def effort donc ba ngeen défé effort dem ci xam xam bobu après lañ leen leen jox diplôme mais dessna na diplôme képp ku ko am xam ngeen après di ngeen ko expérimenter di ngeen def stage stage bobu moy pratique boy ñëw taxaw taxawaayu pratique donc gëm gi doyul xam gi doyul vous nga jëfee ko boko ko nak ba nopi ci la di donc day quatrième dimension donc cela veut dire que ni bu que ni ñun dañoo gëm yalla ne ay julit lañ li nga aspiration pour se réaliser temporellement et spirituellement ko concrétiser à travers l'islam bi gëm l'islam bi dafa am manquement l'islam bi dafa am manquement te l'islam lenn mooy rolam benn rôle rek la am ci yow mooy da la fekkee ci lëndëm jëlee la ci lëndëm yóbbu la ci leer bu la fekkee ci pauvreté jëlee la ci pauvreté yóbbu la ci richesse bu la fekkee ci maladie jëlee la ci ñàkk wér yóbbu la ci wér bu la fekkee ci ci tumuranke mu jëlee la ci tumuranke jëlee la ci su yóbbu la ci sutura loolu mooy rôlu l'islam waaye bu fekkee ni yow danga ne jullit nga gëm nga yàlla xam nga yàlla mais yow mënuloo def ben effort personnel bu nga xamanteni dina améliorer sa vie temporellement ak spirituellement mais li nga gëm lum lay jariñ kooku li nga gëm mo amul mo complétul wala yow ya amul yow ya amul euh, capacité question la te da fay dem ci sunu vie temporelle Sénégal on est 95% de musulmans dëkk bi boko xolé tu te poses beaucoup de questions lan moo tax depuis 50 ans d'indépendance, indépendance ñu développer dëkk bi depuis 50 ans d'indépendance, mënu ñu réaliser lo xamanteni rejoindre dëkk yi nga xamanteni les pays développés té l'islam lañuy dund quel est le problème boo muy mel ni l'islam indiwul programme boo xamante ni mën nañu permettre ñu génnee ci sous développement dem ci développement loolu débat la wala boog l'islam dañ ko réduire rek ci euh, pratique euh, euh, dogmatique rituel maanaam julli woor nata asaka dem màkk ajjuma jot nga sol sa Jasner, jigéen ñi sol seen taybaas jaay taar tabaski korite jot bu ñu ci paree jeex na bu appliquer la civilisation islamique ku ci nekk demal sa xelu bopp ñii tubaab yi lañ yaakaar pour tedd ñii arabe yi lañ yaakaar pour tedd Je ne comprends pas. Tu vois Sénégal dès que le bon war réfléchir parce que la doctrine bi nga Moi gouverne le Sénégal doctrine bi nga euh, euh, Moi euh, mm, gouverne le Sénégal doctrine ce c'est pas islamique. constitution Sénégal constitution bi gouverne Sénégal c'est pas islamique Sénégal il a une constitution ñetti constitution a une constitution constitution coloniale bi constitution euh, soufisme parce que Sénégal l'islam il ngi fi à travers le soufisme la constitution bi nga xamante ne ñoom la les wahhabites ibaadu yi nga xamante gëmuñu tarixa donc ñetti constitution ci benn dëkk te jullit ñi mënuñu toog teg un programme d'éducation qui est en train de ci faire les juristes pourtant duñ ci def débat tu vois les ñi qui génn en science politique ñooy ñoom ñoo ñëw avec les juristes et les économistes Nous sommes génn nous diriger le peuple sommes une science politique lan mooy seen référence c'est machiavélique Quand ci laaj lan programme politique programme de développement islamique du la Quand wax l'islam bi ban rôle les jouer c'est avoir. c'est avoir. tu vois c'est avoir tey ji corruption bi Sénégal dem na ci niveau dans les hautes dimensions de de l'administration. administration corruption bi Nous dans la dimension politique non la demee dans la dimension religieuse donc faut comprendre tu vois Donc comprendre moo tax tey jii dama daan faral di wax naan maarifa Boko nga xamante ni yàlla dafa ne rabbana atina fi dunia xasanatan waxil axirata xasanatan waxil faculté yooyu yëpp dañ koo soxla pour que pour mën a construire société boo xamante ni day mucc ayib yooyu yëpp ñu ci toll c'est à voir donc mbir mi débat la mbir mi du cant du ñëw dajaloo zikkar zikkaru laa jàng xasaayid waxtaan yàlla ji moo neex après ñu nekk non non non non non du loolu dañoo war di mesurer fu ñu tolloon daaw fan lañ toll ren ak fan lañ jëm déwén dañ cee war a génn saayiratan ak baatinatan mais mënuñu di dund ci situation bi ba nga xamanteni ne foo toll ñu ne ñoo am dëgg ñoo am yàlla ñoo am dëgg ñoo am yàlla après à la fin ban utilité la ñu amal mënuñu développer dara mënuñu changer dara tu vois li julli ñu tekkiwuñ dara ci àdduna bi toutes les grandes instances internationales toutes les grandes instances de décision amul benn pays musulman tu vois Sénégal tu vois situation bi xool leen nu mu demee Hmm? jusqu'à présent impérialiste colonial bi ñoko diriger dirigé bi ñoo dirigé dëkk bi ba légui Sénégal bari na wul ay jullit ay kat la bari tu vois tu vois tu vois donc xam-xam bi buñ ko bolé toutes les connaissances scientifiques logiques mathématiques rationnelles bolé ko science métaphysique bi mën nañ libérer le Sénégal kon ñun tay ji nga xamante ñun ñoy talibé ñambé daru yi bu ñu ñun ñoo libérer le Sénégal ñun ñoo libérer l'islam mais à condition que nag ñu armé wu comme le Cheikh Anta Diop doon waxee il faut vous armer de la science pour ngeen vous dem parce que àdduna bi xam-xam moo ko xam-xam moko ko adoration adoration yoro ñun liñ bëgg politique moñ ci mëna a mais pas adoration julli woor ak natt asaka dem màkk yobuñ fenn amuluñ ben njariñ donc il faut que ñu jaayante il faut que man damay présenter l'islam comme un parti politique modèle politique islamique qu'est ken exposé coucou tu vois politique lan politique politique lan lay signifier ce qui occupe les affaires de la cité mais l'islam lan moo tu tax a jóg nit ñi ci donc l'islam purement politique là, mais parti le bon xamante parti divine la Tu comprends mais am a une parti opposition boo xamante ne le parti diabolique c'est les partie ñoom philosophie machiavélique pour diriger communauté monde tu vois donc il faut que nous révolutionnions la situation tu vois donc l'islam maarifa gi tawhid jurisprudence connaissance littéraire nga xamante ni tey dans le domaine de l'art mais yooyu yëpp dafa bok ci ci faculté yi nga xamanteni moy tax doomu adam bi réalisé wu tey jii booy doon exposé l'art dans le domaine islamique l'art man musuma gis Sénégal ñuy exposé l'art dans le domaine islamique l'art opposition bi nga xamanteni mom la occupé tu vois tey li ñuy def ni tey jii taxaw taxaw zikrullah zikrullah tey jii boo d'on scientifiquement boko d'on exposer exposé dans le domaine culturel lay dugg parce que c'est des champs way la way la

xam bo ma joxe sa bop ñaata fan la waxon fukki fan ak juróom xawma ma agale la ci yalla donc na nga am xel am xol tay xalaat saafonte ak ñambe mu xamal la xam-xam bi tek la la yoon boyal boyal la baye nga nga dem mais nak su boba am na yeneen jumtukaay yoo xamante ñoo lay mën a permettre nga mën nga mën a réaliser wu quoi tu vois donc dañoo war a yeesal ñi nga xamante ni noonu la ñuy liggéeyalee yàlla bëri na nag ñu nga xamante ni te yàgg na ak xam-xam bi Seydina Alioune dafa doon wax ay taalibeem ñaar rek laa tiit ci yéen mooy ma jox leen xam-xam ngeen ci jëfandikoo di ci faj seeni soxla neex-neex yi ngeen koy jël bis bu jafe-jafe yi ñëwee ngeen dellu ginnaaw loolu rek laa ragal ci yéen wala ngeen di utiliser xam-xam bi di ci noot seen moroomu doomu aadama mais góor yàlla dëgg seexul murabbi dëgg mooy ki nga xamante ni boo ñëwee dalay xamal sa bopp xamal la sa borom bàyyi laax sa borom nga dem jaamu ji yàlla comme ni ko ñàmbee donc dañoo war a jël xam-xam bi teg ko fa ko ñàmbe tegoon ba pare fixer objectif yi te xam ni àdduna moo soxla xam-xam bi war nañ ko mën a exposer ci làkk bu nekk war nañ ko mën a exposer ci domaine bu nekk war nañ ko mën a démontrer aussi ci faculté scientifique bu nekk parce que yoon yi yoon yi nga xamante ni ñooy dem ci yàlla ñoo ëpp nopp ñoo ëpp caru nopp doomu aadama yi loolu la bi wax donc euh, ci tënk ma bañ a xabaabal li nga xamante ni daal moom am ñun nga xamante ñoom ñoy woté woo ne ñoo xam yalla ñoo gis yalla ñoo ag ci yalla war nañoo mën a démontrer utilité yalla utilité xam yalla quoi njëriñu xam yalla quoi tu vois dans tous les domaines temporel ak spirituel quoi je vois que buñ ko tegee fofu liggéey yéssal yéssalat mën nañu rejoindre objectif yi nga xamanteni mom lañu bëgg di siyaar bi wër di djéggalu awma habitude euh, di def conférence wala may wax ni rek di dem dama gëna am ci débat lay gëna jéko bagage yi dal tu vois ci débat lay gëna jéko bagage yi té wax fay jafe quoi tu vois donc parce que boy wax ci yalla di échange di dialogue di débat ci ngay gëna a ci lañ lay gëna mëna relancer dal té lég lég tamit di gëna doy war moy da ngay wax fekk am nalonga lu nga xamanteni yang koy tok di wax té ki lay déglu mo la ci ëpp xam-xam fop donc euh, du yomb dal mais li nga xamante ni daal moo am solo ba am solo mooy que euh, ñoo ngi liggéey avec capacité individuelle yi ñu yàlla may yëpp naka la ñuy def ba xam-xamu ñàmbe bi kon na ni xam-xam bi mën na soppi jamono te loolu ñun gëm nañ ko gis nañ ko ndax jaxasoo nañ ku nekk ak ci àdduna bi te vraiment fu ñu mës a teg sunu xam-xam gisuñu kenn ku ko fa jëlee ñu ngi sant bu wér day gërëm day sant